بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندل في أكين كسنو جتايو دارا جيد جتايو مجالس نو تمبر لغا خمنا ممي القرآن الكريم ندبيكو أسلفو مع القرآن ما جتيم بنان لن يدان دوندي أك القرآن الكريم ci seen kër xam ne moom ngeen ko baaxoo di amee ci àdduna gi yëpp fu ngeen mën ti toll muy la maison du Coran au Sénégal di nuyu bu baax a baax Cheikh Abdel Aziz Camara ak ñi nga xam ne ñoom la àndal yëpp ci liggéey bi waaye di nuyu bu baax a baax a baax jëmm ji nga xamante ne moom moo yor wàllum caméra bi fii ci Mbour muy Moustapha Ciss nu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax tey jotaay gi nga xam ne moom la ñu dooroon bi weesu ndax ñëpp xam nañu nattu bi nga xamante ne ak balaa bi yàlla teg ci àdduna gi muy feebar bi nga xamante ne dafa laaj muñ dafa laaj tuub dellu ci yàlla buur bi subhanahu wa taala dafa laaj ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala dafa laaj defaru bu baax a baax defar jikko yi moo tax ñu tànnoon laaya yooyee ca suratal anbiya doore ko ca wa ayyuba id naada rabbahu ayyuba ba muy ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala muy parti bi nga xamante ne dañ cee war a jàng nan la ñu muñee li nga xamante ne moom mooy balaa bu dal sa kaw wala nattu bi subhanahu wa keroog ñu tuddaloon leen ci lu baree bari lu daw yaram loo xam ne bu nekk war na ci mën a al yawm haada dawrul mar'a asaliha tey nag ñu war ci jàngee soxna su baax ban jariñ la am ci dundu doomu aadama nit ku nekk mënoo réussir mukk lu ne soxna su baax moo nekk sa wet moo arab di wax naan waraa kulli rajulin azimin imraatun taqulu lahu lasta azima góor gu màgg gu ab jigéen gu màgg màgg moom mu nekk ca gannaawam mbokk yonent yàlla ayub ba nga xamante ne yàlla teg na ko natt wi ba ay nitam daal di koy génnee ca dëkk wa nga xam ne ca pencu dëkk ba sooy dugg foofee lay nekk nga xam ne seen njaay àll yi sax bëgguñu ñu jege ko la xawla wala quwwata illa billah kenn moo ko fa daan fekk kenn moo ko doon toppatoo muy soxnaam tey jii nag ñu war a waxtaane lenn ci li nga xam ne moom mooy taxawaayu soxnaam soosee ndax soxna sa ba nga xamante ne ayuba alayhi salaam amoon na alal am njaboot saar woon lool jekk woon adunaam lool ba nattu ñëwee tappaasu ko pour mu fase ko kon jigéen ñi jàngee leen ci sa jëkkër sa borom kër bu mu am nattu mukk ba tax nga tappaas ko pour mu fase la ba mu tax nga wor ko bal soxna sa da doon toppatoo ki nga xamante ne moom mooy ayub suba ak ngoon guddi ak bëccëg soxna soose kama ixtalafa ahlul ilm ñu tudd li nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wax njëkke ko ci turam baaduhum qaalu lenn ci borom xam-xam yi dañu wax ne soxna soose mu nga tuddoon layya bintu minsha nee nañu layya la tuddoon woy juram nekk ki nga xamante ne moom mooy minsha ñenn ñi nag daal di wax ne rahma la tudd comme ni nga xam ne noonu la ko ibnu kathir nettalee ci téere alquranul karim gi waaye soo demee ci albidaaya wa gën na cee yaatal nee ne rahma bintu afraim nee ne rahma la way juróom nekk si nga xam ne moomee afraim afraim moomee nekk doomu yusuf yusuf doomu yaqub alayhim salaam kon ci wàllu turam ñaar yooyu moom moo ci gën a siiw ci li nga xamante ne moom mooy téere yi borom këram ba mu demee ñàkk coono dal ko nattu dal ko yaramam yëpp amut lenn lu ci wér nit ñi daal di koy génnee ñëpp jàpp ne ku toog ak moom dafa lay wàll feebar boobee kon feebar la boo xam ne ñoom dañoo jàppoon ne dafay wàlle ñëpp daal di koy génne ca biti soxnaam la nga xam ne moom la ba dese woon ca alal mu ko cay toppatoo di ko ca toppatoo ba alal ja deex alal ja jeex takk lan moo des soxna fay wër ci dëkk ba di liggéey pour di dundal ayub bu teyee mu dem fóoti su fóotee ba pare fayeeku daal di dem jënd ci lekk ak naan andil ayub bu subaa mu dem baleli ay nit su balee ba pare mu fayeeku andil ay yóob gannaaw suba mu toppatoo gannaaw suba mu daal di dem bay lu nekk soxna si def na ci dëkk bi pour andil borom këram la nga xamante ne lay dundee la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah soxna su baax nii lay taxawoo borom këram mbokk yi soxna soosee nga xamante ne moom rahma ñenn ñi ne la yaa lu nekk def na ba amaat jamono mu gën métti lool la ko waral mooy waa dëkk ba ba ñu xamee ne kii de ay Ayub la ca lañu ko seexlu kenn liggéeylootu ko kenn santatu ko dara duk bunt kër bu mu fëgg suñu ubbee xam ne moom la dañuy delloo buntu bi fu mu aw moom soxna si ci boppam ñu koy daw ngir lan mu ngi wut la nga xam ne moom lay toppatoowee borom këram ba am benn bés wër na liggéey ci dëkk bi yëpp amut wër na fóot wër na yi ndab lu nekk wër na ko moom soxna si amul dara la hawla wa quwwata illa billah ci noonee la daje ak benn góor góor gi nag mu ngi yor melokaanu ab docteur ndeketewoo iblis la alxabis allain mbokk yi foog ngeen jàngee ci ne iblis du découragé mukk feek yaa ngi dund du découragé mukk pour mu def loola loo xamante ne safara la lay yóbbu mu daal di yor melokaanu lan ab médecin ab docteur comme jamono ji ñu toll nga xam ne docteur yi lu ab docteur génn ci télé bi ne lii day faj rek corona ñëpp daal di daw dem jëndi ko docteur bi daal ñëw ci soxna si mu ko sa jëkkër lenn lu sew lu ndaw moo koy faj mu ne ko na jël azubaab mooy weñ yii di naaw zubaab nee na na jël benn weñ waxu ko xar waxu ko béy nee mu rendi ko ci turu sanamu bani fulaan fekk ñoom am nañu ay xërëm yu bari yéefar ya mu ne ko jël mu rendi ko ci turu xërëm sàngam masalan fii ci dëkk bi ñi nga xamante ne ñuy rendi ay nag yu ñuul ak yu mel noonu ci ay turi jinne na jël ab weñ weñ yii di naaw mu rendi ko ci turu xërëm sàngam su ko defee dina wér comme que la dafa jaaxle almaratu mar'a walaw kanat nabiya jigéen la dafa jaaxle ci borom këram bëgg na borom këram wér ku ko ci jàppale mu jël te xamut mu daal di dem ca borom këram mu ne ko gis naa ab docteur bu ay nee na ma tey soo jëlee ab weñ rek nga daal di koy rendi ci tuuru xërëm sàngam nga daal di wér ayub daal di siggi mu ne ko jaakil xabiisu laayin yow seytaani bu bon bi seytaani bu xasaw bi ñëwaat na ci yow découragé wul ba léegi mu daadi cala ayyuba waate mu ne ko suma yàlla teggilee nattu wi suma wéree la ajli dannaka mi ata marra suma wéree dinaa la dóor téeméeri yar kon loolee sax daañ ci yegg insha allahu taala kon lii moom mooy li gën a siiw ci téere yi li taxoon ayyub waxoon soxnaam ne dinaa la dóor téeméeri yar soxna si nekkat ci loolu boobu ba léegi waaye terewul geddul jëkkëram benn yoon muy dellu di liggéey mu wër ba sonn amul bam ca tegee ay fan mu war liggéey ba sonn amul fekk yàlla def ko meyoon kawar gu gudd kawar ga rafet lool mu daal di dégg ne doomu benn ci kilifa ya benn xale bu jigéen amul kawar mu daal di ñëw daal di def kawar ga ñaari xarn maanaam ni ñu koy dajalee nii mu gudd mu daal di wat wee benn wàll ga daal di dem jaay ko waa kër googee ñu jëndal ko seen doom ja ñu jox ko alal ju bari mu daal dem jënd ci lekk bu bari ak naan bu bari mu andil ko ayub ca penc ma bi mu ñëwee ayub ne ko lekk wii lekk wu neex wii du ko lekk mukk lu ludul nga wax ma fan nga ko jëlee mbokk mi yow mii toog sa doom bu jigéen di la andil alal saay su nekk te xëyul gontul laaj ko fu ko jëlee yow mi toog sa jabar di la andil lu nekk lijjanti te fu nga ko jëlee ayu ba ngay waaj a waaye nee na ko du ma ko lekk mukk ludul nga wax ma foo ko jëlee soxna si daal di ko wax ne dafa am ñu ma liggéeyal tey ji ñoo ma jox lekk wu bari bi ayub daal di door a nangu mu lekk ci lekk googe ñu lekkaat ci ay fan nekk ci ay fan lekk wa daal di jeex mu daal di dem wataat beneen wàll jaayaat ko ñooñee ñu jëndal ko seen doom pour mu mën a am kawar la hawla wala quwwata illa billah soxna si amatul kawar mu daal di muuru noonu daal di ñëw bi mu andilee ayuba lekk gu bari gi ayub daal di koy tiim alayhi mu nekk ko wallahi waat naa ci yàlla ne du ma ko lekk mukk lu dul nga wax ma lekk gi fan nga ko jëlee soxna si ne ko dama liggéeyalaat ay nit ayuba daal di lànk ne ko lekk yi wax ma foo ko jëlee bi nga xamantene ne ayub sonnal na soxna si soxna ci daal di dindi la nga xamne moy khimar nga manam la nga xamne moy kol ba ba mu ko dindé ayub gis ne soxna ci dafa jaay ay kawaram pour daal di koy lekkal pour jox ko limuy lek ca sa sé la ayub fekk fukki at ak juróom-ñett yi matna xolam jeexna ca la daal di sujoot yëkkati ay loxom mu ne yaa rab inni ad-durr wa anta arhamur rahimin يا رب يو يالا بربي سبحانه وتعالى إني لك من تجام مسني الضر خول الير أدب الأنبياء خول الير جينا خمني مملني جنجي تي يننتي وخط سهي الله نيامتك خير بابي وخط يالا نيامتك نتوي دفنا كو يالا أب نتو دلنا سمكو أب لور واشكنا من وأنت أرحم الراحمين تيو يالا كوي أم يرماندي يا كو أب يرماندي يا رب inni massaniya dur wa anta arhamu rahimin kon mbokk yi képp koo xamante ne yàlla teg na la nattu jàngal ñaan wi ya rab ne ko yàlla inni massaniya dur wa anta arhamu rahimin ba nga xamante ne ayub ñaan na lii rek yàlla lu mu ca teg fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur wa aataynaahu ahlahu wa mislahum maahum allahu akbar yàlla daal di koy nangul ci saasi mbokk yi nan la yàlla nangulee ayub nan la ko yàlla fajee nan la ko yàlla delloowee njabootam loole yëpp borom xam-xam yi wax nañ ci leeral nañ ci ahlul ilmi dakaru qadra istitaatihim ñoom tudd nañ ci lu baree bari insha allahu taala kon ñaanu ayuba ngi noonu ba mu jaaxle yow mi nga xamante ni yàlla teg na la deftu suwaat da nga corona yaa ngi ci lalu hôpital yi wala ak feebar bu la mënti dal ak foo mënti nekk royal ci ayub yàlla dafa bëgg ñu ñaan ko moy la nga xamne mom la borom xam-xam ba waxoon yàlla du wërsëgal nit ki mu ne ko astaghfirullah muk ludul ne daf ko bëgg jéggal kon yàlla du la may nga ñaan ko muk ludul ne la bëgg may waxal ne rabbi inni massaniya durr wa anta arhamur rahimin ñaanal yàlla bur bi subhanahu wa taala kon jotay gi di ñëw ñu wax leen nan la ayyuba wéré nan la ko yàlla delowé njabotam comme ni nga xamantene noné la ko borom xam-xam yi waxé ñu wéy ci page bobé di firri alquranul karim andako comme niñ len ko won as-salafu ma'al qur'an ñu bax ñi ñu texe ñi nan lañu def ba daal texe ak al-qur'anul karim gi ak nako al-qur'anul karim tuddé ya rabbi in massana durru aw daqat bina al-hiyalu falan yakhib lana fi rabbina amalu أنت المنادى به في كل نازلة وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل من يبقى أن دل يالا بور سبحانه وتعالى يا رب إن مسنا الضر su fekkee ne ab lor dal na suñu kaw muy feebar bi nga xam ne lëmbe na àdduna hatta ugliqatil masajid jàkk ñu tëj ko nit ñi demati ñu juma daar yi am problème aw daaqat bina alxiyalu pexe amatu fi ku ñu yaakaaroon ci kaw suuf ñi nga xam ne ñoo ëpp doole ci kaw suuf grande puissance yi docteur yi gën a xereñ ñëpp jaaxle nañu ci feebar bi ñun nag fala yaxiiba lana fi rabbina amalu suñu yaakaar du tas mukk فما ذنكم برب العالمين يلا يو لنتي يا كار انت المنادى به يو يلا يا كيغا خمانتني يو لنوي و سا يو خماني اف لور ولا نيك نانو فخيو يالا بورب سبحانه وتعالى يلا نو يالا بورب سبحانه وتعالى تيغل يب يلا تخاو بيب جلد فومو مانتي نيك اللهم ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان صلى الاله على النبي واله ما لبى ملب او تهلل محرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته